waaw salaamualeykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbette dalal fii kii di Sidi Makhtar Coly mu nekk président du mouvement des ressortissants Casamance à Thiès mu nekk porte-parole national mouvement Dogu pour le grand, Sénégal mhm. euh, Doudou di président mouvement boobu mhm. euh, Sidi Makhtar ñu ràññee la particulièrement ci say prise de position politique mhm. nga nekk koo xam ne ku sawar nga ci défendre le président de la république et politique nga nekk tamit ku ñuy ràññee en tout cas ci ci li nga xam ne dafay concerner Doudou Ka euh, Ousmane Sonko activiste yeeg en tout cas ce qui se passe dans le pays euh, pourquoi ce choix là pourquoi nga décider en tout cas nekk genre sentinelle président Macky Sall ak euh, ki nga xam ne mooy Doudou Ka. waaw sëñ bi dal leen sant di leen gërëm Euh, leen remercier dalal bi ngeen dalal si Senico euh, Senico yaakaar naa ni ñëpp kay seetaan dafa nekk euh, télé boo xamante ne man dama leen ndaw seen xànceef seen liggéey encore ma leen di félicité pourquoi ngeen ràññee ma may défendre président Macky Sall ñun dañ nekk ay ndaw dool politique su pekkaaw président Macky Sall. Hmm. su politique xamuñu kenn ku président Macky Sall. parce que après lañu doy su politique président Macky Sall moo ñu yàll su politique te nit ki bu la yàll su politique kon mais sa waajur su politique kon camp bu nekk nii taxaw défendre ko parce nangu kenn. kii Tilima sunu kër kër nu bokk mi APR particulièrement Doudou dafa nekk doomu Casamance nekk doomu Ziguinchor ñun nekk doomu Casamance nekk doomu Ziguinchor Ziguinchor sama maam juddoo fa sama waajur yu góor juddoo fa ku bokk ak sama waajur bu góor ndeeg baay ñëpp xam nañ ko mais honorable député Balla Moussa Koli. Hmm. sama papa tuddee ko taawam. kon euh, Ziguinchor dafa bokk su ñun ma gis dudu li muy liggéey Ziguinchor li mu fa def social su hôpitaux yi mais fa plus de neuf ambulances mais fa ay équipement médicaux ma dem Ziguinchor si ay gox goxaat femmes yi nenu si dud li mu fi def gisuñu kenn ko fi def. Hmm, est-ce que loolu mi ngi ko daan def laataa moo am ndomb tànku hmm. gouvernement. Hmm, si yàgg naa social. di Ziguinchor mais ba mu amee ndombu tànk si gouvernement bi la gën a yokk kon ma yaakaar ni nit ku mel noonu kon mu nga ko joxee localité Ziguinchor mais ak partenaires yi mu am ak état bi accompagner ko mais Ziguinchor dina xar kanamam dina changé bu baax. dina bokk si ville yi gën yi gars yi gën a naw si Sénégal parce que ku mel ni Doudou dama koy xoolee Idrissa Seck bu PDS deux mille deux mille quatre. Mhm. laa koy xoolee près bu mu toll ni Ziguinchor. <laughs> te moom laa gis moom laa gis ak lu waa Ziguinchor wax ne Ziguin Doudou moo nu mën a développer suñu dëkk. Mhm. ma gis. équipement kii équipement yi muy joxe ay jeux de moyens yi muy joxe si équipe nawetaan yi. Mhm. ma gis juma yi muy defaraat station haut-parleur si église bi ma gis nga xam suñu mbokk chrétien bi ñuy jaamu yàlla seen kii ventilo clim yi yàqu ma gis mu jën ay ventilo ay kilim yëbbu leen ko. Mhm. ma gis ba le trente ba le trente et mi ngi fay organiser benn euh, kii kii yu médical benn euh, kii médical le trente ba le trente ba le trente et un mhm. benn caravane médicale bu mu fay organiser gis encore le trente ba le trente boobu école yu nekk biir Ziguinchor yëpp war na faa joxe ay dons de pour xale yi nga xam ne seen parents yi seen loxo jot na ginnaaw. waaw mais loolu loolu seen doom yi doo fi nekk nag tamit. <laughs> waaw waxal <laughs> ñu lu yëpp si ngeen sor moom. li muy def yëpp xaju sax sa <laughs> émission. dañu fi jé du ah, ko taxaw. ko du ko kii ma ko naw. mënuma lu dul. Hmm. ñëw taxaw si wetam boot si wetam jàppale ko. Hmm. pratiquement. Hmm. te bu dul daal sax sama nijaay la. sama kër maam la fooy jàmmagunda. kooku sama nijaay la xam nga. mais mënuma lu dul ñëw taxaw si wetam dafandu ko jàppale ko ndax yenn saay saay bañ a tilimal deram wala bañ yàq image am. yenn saay saay yu mel na. <laughs> mais bëri na. Mhm. gis na fii tey si plateau télé ay ñoo xamante ne taxaw du wax xam xamante ne taxawul leen si Doudou mhm. gis na nga fi parce que wax bi ñu wax ko fenn loolu si fumier si naa fekk. Mhm. que li fi am naa toog si plateau télé. xalab kilifa ndax suba mu woo ma dafa ma teraanga. Mm-hmm. xam nga yooyu noonu santas la. waaw yooyu dafa dafa dafa léegi Doudou yow fan nga teg ne par exemple euh, Ziguinchor moom war na fa mën a nekk maire parce que quand même ku wax Ziguinchor sa xel dafay dem ci Abdoulaye Baldé mm-hmm. ku wax Ziguinchor sa xel dafay dem ku mel ni euh, en tout cas Benoît Sambou mm-hmm. ku wax Ziguinchor sa xel sax dem ci. Aminata Angélique non moom kooku moom Benoît waaw sax. kuy tudd turam bi tudd tuur Ziguinchor. Mhm. man damay yaakaar ni yëpp askanu Ziguinchor waay sax loo tax gars yi tudd turam bu nu waa ku mel noonu kooku amul lenn li muy posé koñ bu mu dëkk en ce moment Ziguinchor. Ah loolu man bëgguma sax ni tudd turam fu ma dëkk. bon waa Sàmm bi coordonné APR. ci biir Ziguinchor non non day yàq image président Macky Sall. kooku bëgguma nit tudd turam sama sama sama sama kii. Doudou Ka mi ah. représente l'APR ci biir Ziguinchor. bokkuñu bokkuñu bëgguma nit ki tudd turam boo ma nee Abdoulaye Baldé. mais d'accord non mais kan mooy coordonné Ziguinchor APR Ziguinchor ba wu fa dara. mais moom moo ko coordonné xanaa président Macky Sall du jël lu wu fa dara. ci région bu mel ni Ziguinchor. bu nu wax sàmm man Sidi Makhtar Gueye aw ma lenn li may wax moom aw ma lenn li may wax moom. parce que su xolam mënul nangu duudu. mais loolu c'est normal nangu duudu. kooku man dama mënuma dugg seeg moom. la preuve mais événement yi am Ziguinchor ay nit ñëw bind ko Doudou Ka bañ Doudou Ka mu bind passe Facebook n'importe quoi loolu waxu responsable la yaa ngi ngeen bokk benn camp Macky Sall njaboote leen ah, ngay sabote di critiquer ah président dem voyage mu bàyyi président ñëw Sénégal fajal ko seen ko RFM mi mi wax ah émission bi ñëpp seet nañ ko ah man kooku am na lenn li may négocier ak moom am na lenn li may moral ak moom te it bu mu nag ba bind naa page Facebook lu méngoo tuur Doudou Ka bis bu ko defee bis bu ko defee man maay dal su ko am te ñëpp dañu dal naa su ko am. Hmm, lan ngay def. da loolu moom amul ma si négocier mais doon nekk si contexte politique temps politique la nekk. Hmm. mais yow yow yow lu ne nga yekk Ousmane Sonko quand même. dama ne xanaa keneen tamit am na droit. dama ne parce que Doudou Ka defe naa lu mu wax mooy. Ziguinchor mérité wul violence. Euh, en tout cas Ziguinchor mérité wul violence. xam nga mais loolu. dëgg mais bu ñu naan sàmm nga jiitalee Ziguinchor dafa échec ñëpp gis ko total. dafa échec total kon Doudou mënoon ñëw nekk xale bu tuuti am xam-xam ñëpp ràññal sa xam-xam loo ko jox mu développé ko. non loolu waxu par par loolu la rek Ziguinchor soxla ko bëgg seen bopp. waxu par par loolu def ko def ko seen candidat. Ziguinchor ñoo ko def ko bëgg seen bopp téye ko def ko seen candidat neen Doudou moo leen def tamit seen candidat. kon Doudou gaa dina dem élection yi. di ñëw mais bu ko président mais la président Macky Sall def benn erreur moo ni may suñu kilifa. te président Macky Sall xam na ni man Sidi Makhtar Coly ku ko bëgg laa te moom tamit ku ma bëgg la. daf may seetaan daf may suivre xam na ni ku ma bëgg la moom te xam na ni man caaxaan doxuma si. ah du nee nañ Abdoulaye Balde la ñuy jox Ziguinchor moom xam na ni caaxaan doxuma si. Hmm? président Macky Sall kenn gënu koo bëgg Ziguinchor. waaye Ziguinchor ba mu ba mu temps si ginnaaw ba mu xawee métti kenn ñemewul taxaw am fit taxaw Ziguinchor pour tudd président pour président Macky Sall. Hmm. Doudou Ka moo am fitu sañ taxaw génne ay nitam foofu fees dell taxaw waaye ni fii moo fi ndaw président Macky Sall président fi nekk Ziguinchor ñëpp ànd seeg moom xam nga ñun lu dafa dellu ginnaaw nu bëgg Ziguinchor changé nekkaat beneen ville. moom la waa Pastef bëgg. dama ne waa Pastef amuñu xam-xam na ay partenaires. benn xam-xam la am mais xam-xamu saaga ku wax ku wax saaga la mais waaw man ku ma saaga ma saaga sa ndey kooku moom amul sax lu ma si négocier duudu waa Ziguinchor tànn ko nga xam ne kii moom moo développé seen dëkk duudu bëgg Ziguinchor si biir xolam xool li mu fay def social. social loolu politicien yëpp a ko def. bu élection yi di waaj a ñëw dama ne. ah social bu ñu gisee Doudou quand xanaa temps yi la quand la gën a fës rek waaye. dama dama ne. Ah. waa Ziguinchor ñoo ko wax seen bopp. mas Casa Sport bi passé ñaata la accompagné équipe Casa Sport ak équipe jàmbaar 8 millions ku nekk 8 millions ñu jóge fa phase régionale yi Thiès ñett équipe yi jóge woon Casamance ñëw mu déplacé ñëw ku si nekk mu jox la enveloppe yi am doole parce que dafa bëgg Ziguinchor si biir xolam. loolu xaalis réew mi la rek lay jël si biir xolam <laughs> xam nga. waaw dama ne Doudou université yi gën a mag France fa la génnee. Hmm. ma ko ëpp diplôme fii Sénégal fii si réew mi nekk nii. sarañteem. d' accord bu ko neexoon bu ko neexoon toog Fass ne xaaral ma liggéey. d' accord dund léegi bu président Macky président bu président désigné wul pour mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar. foofu ci Ziguinchor dama ne euh, kan dama dama ne. lu ne mën na am quand même président Macky Sall amul kenn ko gën a bëgg Ziguinchor Casamance. Hmm. amul kenn ko gën a bëgg. te gis na du dafa liggéey Casamance ba téye ko loxoom. xam nga Ousmane Sonko mii bi muy ñëw Ziguinchor dafa xool nag ba xam ne fii du doo fi nekk moo fi sës kon dafa bëggaat bës bëggaat tuuram tuuram yëkkatuwaat encore loolu mu dem provoqué doomu jàmbul mais Sénégal ñëpp nangu na peut-être bu ñu toll dugg ma nekk Ziguinchor. Hmm. loolu Sénégal ñëpp kanangu d'accord kon jàpp nga ne président Macky Sall du xam ñun li ñuy ñaan bañ a désigner Doudou Ka xam nga ñu xam ñun li ñuy ñaan mais est-ce que président dina def erreur tamit ci xam parti am ay nitam Doudou Ka du laale ak. Euh, xam nga xam nga lii ñaan Benoît Sambou du laale ak Aminata Angélique Manga. Ah. moom ay njabootam. jubóo est-ce que baax. mu dem non moom moo sikk. mu dem kon kon nga moom du laale ak benn responsable Ziguinchor waay kon moom moo sikk. kon du laale ak man Sidi Mata Koli ma tam du nga du laale benn responsable Casamance kay kon moom moo sikk kon kooku man dama wax ay waxam man li ma intéressé ba développement Casamance. te Doudou Ka moo ko war a def développement Ziguinchor te kon que Doudou mi ngi koy def mi ngi si dox nañ ko jàppale mu gagné ville sol mu changé xel kanam Ziguinchor. Hmm. ñu loo mel si ndam mais président Macky Sall mais ndamu APR mais ndamu Bokk Yaakaar. Hmm. mais mu dogu pour le grand Sénégal. waaw léegi damaa laaj sama question tontoo ko dama ne. au cas où président décidé woon euh, jox coalition bi Abdoulaye Balde est-ce que di ngeen nangu dem soutenir. Abdoulaye Balde bëgguma sama wax mais foog ma wax si Abdoulaye Balde bu la dénkee ville Ziguinchor ñaata at demoo dikkoo. Abdoulaye Balde. demoo dikkoo. dégg la ville Ziguinchor ñaata at. Ziguinchor tey bu amee pavage ak canalisation Abdoulaye Balde naka la bakki dem moo tax mu ne commissaire de police la. commissaire de police kay loo xam loo jàng enquête nga xam enquête nga jàng ak jàpp loo nga loo gis nga jàng. moom moo tax ma wax loolu moo ma ko bakki bakki démb ba muy affaire aji sall nangam nang bi kenn xamul dugg si yu kenn xamul ah ba santas président Macky Sall nan ay dama ñëw sa ay langam nangam président Macky Sall di ko santage Macky Sall nekkul ku ñuy santage de Abdoulaye Bal dafa wax ne Macky Sall nekkul ku ñuy santage moom ab xuusmaa njàpp la dafa dem a dem a dem a dem ba xamatu fi muy dem mu doon nan da ñëw bokkatu jox nañ ko Ziguinchor ay ati at ati at Ziguinchor demul dikkul def fa dara te contexte bu mu génnee contexte sax bu ñu ko joxee Ziguinchor sax si jamonoy Abdoulaye Wade ak contexte bu mu ko jëlee temps bi may na ko bu nga temps bi may nu développé ko fooy ni moom askan bi choisir nu ko pour fal ko pour pour pour loolu comme que loolu dem na ba am liggéey amul daal lu mu def Ziguinchor bougéwul yëngatuwul si jàmm ak salaam nga xam ne Ziguinchor dafa war a changé développé nekkaat beneen ville. moo war a bàyyi quoi. waaw mu mu noppalu bu fekkee dafa bëgg Ziguinchor. fekk dafa bëgg avancement Ziguinchor kon nga tax na fa ay ati at xam nga daa yëngatuwul mais xoolal étudiant Ziguinchor waaye dama université bu Thiès étudiant li ñu fa daj dama fa nga xool dama fi ikat étudiant li ñu fa daj man sama portable étudiant yi ñaata yoon la may woo dama sollicité pour ma pour ma ñëw fa du leen du leen subventionné benn res amul benn responsable fa leen pour jàppale leen amul benn responsable fa leen pour jàppale leen hmm. kooku lan la lan li muy defati li muy defati si localité Ziguinchor. waaw ah, dina leer élection yi en tout cas. dina leer lu mel noonu. moom moom moom dafa lu mu war a def dudu mbokkam la rakkam la dudu ngor bu mu amoon ba bàyyi woon lépp ay jàppale ko. Abdoulaye Bal foo am ngor boobu ñëw taxaw xam ne du def nag ñëw jàppale ko. d' accord loolu mooy yëfu nit loolu mooy euh, léegi dafa am ponk boo xam ne quand même mënuñu toog fii euh, nga yow nga nekk porte parole lu. ndogu euh, le grand Sénégal mu nekk mouvement boo xam ne. Doudou Ka moo ko initié. Mhm. mu nekk un mouvement politique national. Mhm. te du ñu wax incident yi nga xam ne am na temps yale foofu ci Ziguinchor. Mhm. mu nekkoon ay incident violent yoo xam ne dafa euh, boole woon ay militant Ousmane Sonko ak militant kii di sa leader Doudou Ka mhm. ay nit yu bëri gaañu ci mhm. mu am ay blessés yi grave yoo xam ne finalement hôpital la ñu mujjee te duñu waxtaanee lu mel noonu mhm. euh, ndax nga ko jàngatee déjà ñu bëri jàpp nañ ne Doudou moo tooñ yéen ngeen jàpp ne Ousmane Sonko moo mais lu tax yow nga mën a jàpp ne tamit euh, Doudou moom moo am raison ci kaw Ousmane Sonko xam nga li may li ma faral di wax te sama wax man dama ko nëbb xam nga Ousmane Sonko tàng taayul di attaqué gouvernement Sénégal ak Macky Sall ak régime am du ma taay tamit du ko tontu dafa am benn groupe seen politicien fi nekk seen opposant fi nekk seen mbëbët lépp yàq image Sénégal yàq image gouvernement Sénégal seen mbëbët seen mbëbët yëpp loolu la. ah mais ay opposant lañu. dama ne. léegi nguur gi moo war a góorgóorlu bi kenn du yàq image xam nga li gën a ñaaw si jëfin hmm. dëkk boo xamante plus de seize millions d'habitants ñoo fi nekk mais ay benn benn sagaw nit yoo xam ne tekkoonu daa démb ak bakki démb ñuy nan toog di leen seetaan ñuy dem di wër di yàq image Sénégal yaakaar ñun naka def nan la ñu yàqee image ne mais bu amee lu ah? ci réew mi xanaa nga nekk opposant am nga droit taxawoon ne lii c'est pas normal loolu bañ na ko mais ñoo xamante chaque jour hmm. li ñuy wax daa tegu si teguñu ko fenn booy ne gën gën bañ sa ak ne président Macky Sall ak nguuram ñun loolu duñ ko seetaan ay nit ñoo xamante ne mënuñu tabax sa pont pont pont bu gën a daw. waaw mais nekkuñu au pouvoir. ah bu ñu nee au pouvoir dañ defaree. pont mun na ko def Ousmane Sonko. dafa nekkuloo au pouvoir Sonko. pouvoir moom moom. tabax ay pont ak yu mel noonu. nit da ngay am jom sa bopp waa nga am du jomale hmm. mën nu taxaw démb ak bakki démb nga jël sa oto. non non dinañ yegg foofu nañ ñëwaat d' abord ci problème mu incident bi xew ci biir Ziguinchor. moom laa ñëw nii. waaw non parce que boo naree dem fii dem ba Ndar géej ñëwaat. mbir moo xam ne mu ngi faas fii rek. fa laa ñëw dafay métti. fa laa ñëw. waaw fa laa ñëw bu yàggam bi. <laughs> dama expliqué la yëpp quoi. Ah. moo taxaw démb démb fàtte xaju fi parce que yàggul démb nga taal sa oto jóge sa kër. guddi nga dem si benn salon xamu offees salon de massage la demoon. salon de massage. salon de massage la demoon. Adji Sarr daa jàng massage. masseuse la. fu mu jàngee massage ban école. ah mais dans dans la rue. amul benn école bu mu jàngee masseuse. ah mais loolu moo xew Sénégal benn école mu jàngee massage ñoo fi nekk ñu fa jógee jànguñu loolu. dama ne hmm? cette fille là amul fenn fu mu jàngee massage. waa mais moom loolu wax bi da wax bi da nga wax sa dee. amul fenn fu mu ko jàngee. Mm-hmm. amul benn diplôme boo xam ne am na ko si wàllu fenn wax bi da ko wax dee jaru raay mm-hmm. Ousmane Sonko si yaramam sant li sant si yaramam taal otom si office boobu xam office la xamal salon xamal salon de mu jubali foofu si maison rouge boobu jubali foofu yaa ngi faa dem dafa dem dafa dem dafa dem dafa dem te ndaw si nee na saa yi fa ñëwee naka may xaalis salaam dama asaay la ay capté film la femme de ko wax de déedéet waroon na nañ ñëwaat rek ci question bi dafa ko may xaalis yooyu romb nañ doon foofu xaw ma sa xaw ma obèse la Sénégal ñi sax ñu may analyser bopp parce bi nee ñu ngi fa ñëw ñu ngi sëkk li ñu sëkk ay yoon ñoom tamit mi ngi may xaalis ñoom ñaar ñoo xam seen mbir privé la bopp la parce que lu bon lu bon dong la yaa ngi dégg ba li fay fekk fekk fa pent juddu fa yaakaar naa su bëggoon kay maase ku bëggoon kay maase non non ñëwal ah, ñëwal ci question bi rek am na ay portion yu nekk fii. non non ñëwal ci question non débat boobu weesu nañ ko ko. waaw ah. débat boobu weesu ko. dama ne loolu am. Mbacké Demba Ndiaye yow ngay wootee patriote patriote patriote dina dina patriote dina dina dina dem fi nga jiñee fi yoon patriote dina gën du jë ay xale naan danañ mag bu saag ko. patriote ay jeunes étudiants xam ne seen parents da leen fenn dem université di jàng nga jël xale yooyu di leen jàngal saag si internet bi ba seen jàng yàqu ñuy wër si mbedd Dakar yi gauche droite ay activiste noonu loolu patriote dina ko dina ko woote Ousmane Sonko ku yàpp ñun bañ ñu bay politique nga politique mais bay politique woo génne xam-xam teg ko ko taaw bi ñi xam ne li nga xam-xam la. déet Ousmane Sonko day wax xam-xam de. amul benn xam-xam bi mu wax. diw dafa lii diw dafa nangam diw dafa nangam dafa nangam ah? lu muy wax moo la doyul rek waaye Sonko kat. dama ne dama ne xale yi léegi sax bu ñu toggee seen jotaay bu amee kenn ko xam ne fenkat la bi ñëw dañ naan Sonko ngi ñëw. déet waxuma loolu déet buñ dugg ci dafa la ne yow incident bi xew Ziguinchor lan moo tax nga jàpp ne. incident bu am Ziguinchor moom lañ tooñ. lii xel Ziguinchor. Hmm? Ousmane Sonko dafa ñëw ba Ziguinchor. pendant trois jours mi ngi doon recevoir ay nitam mais kenn yëgu ni Ousmane Sonko mi ngi biir Ziguinchor kenn sentu ko pendant trois jours mais directeur général des aéroports Sénégal Doudou Ka woon dem Cap Skirring tourné sa affaire liggéey ay béy si wàllu liggéeyam ba mu fa jógee kon que am na kon moom nit social la. Hmm. am na ay jeux de maille lu mu joxe. am na ay ventes ak clim yu woon yóbbu si église bi loolu la ko dèjà ñëw Ziguinchor. mais ba muy ñëwee Ziguinchor dem si église bi joxe ay ventilo yee militant mi nekk fee joxe ay jeu de moyen Ousmane Sonko bàyyi ba guddi ba guddi ba muy xaw a guddi mu ñëw si ginnaawam ba mu ñëwee en face kër Duduka bu jàkkaarloo bu nu kër Duduka nepp kër goo xamante ay appartement la yoo xam ne dañ ko loué mu ñëw foofu su benn apartement andi ay ponkalam ay nevem ay bandi ay wëyam gars yi ñëw foofu ba en face ko Duda mais di recevoir di recevoir waa Inaakuwa jàppoo. non mais Inaakuwa jàppoo ñoom nee nañu foofu seen siège. non attends Inaakuwa wala loolu amul. waaw foofu siège Inaakuwa la ko waa waaw ku ko jite. Mm-hmm. mi ngi tudd Khady Ndiaye. femme mm-hmm. bi dégg ko wax si Duda nekk. lan la wax dégg ngeen femme mais dinañ demante. nee na foofu du siège Inaakuwa du siège Inaakuwa jàppoo. femme bi may seen présidente Khady Ndiaye. Hmm. femme bu dynamique femme bu jàmbaar dégg ngeen femme bi wax. gis nga Ousmane Sonko benn affaire la. ah démentir na loolu. xam nga Ousmane Sonko. vidéo yaa ngi ci internet. kon kay moom nitu fitna la. Hmm. nitu ay la. nitu ay la. Hmm. moom nee na sañ-sañ lay demee. loolu loolu la mu ñëw mu xam mu mu xam ne fii Doudou moo gën a taxaw Ziguinchor. dafa téye Ziguinchor si loxoom. mais foog ma dem kër Doudou profeké ko su ma ko profeké ba ay am fa suba presse bi dañ dañ dañ mën la ñuy xëy Sonko Doudou nga lu mu doon da koo am. mais léegi yéen ngeen ko xamee lan moo tax ngeen fekk si ko ci jeu boobu. non attends Doudou fekkee ko de. nga ah. Doudou nga taxal Doudou mbooloo bu. mais yéen laa wax yéen militant yéen a ko def. Doudou am na ne demul sànni gën a xeer mbooloo mbooloo bu Doudou àndal bu woon mbooloo kon Sonko doom def gaa def na ko doom te loolu cessé daa bëggoon jeunesse Doudou jàpp ko duma ko fa mu génn taxaw tali wala gis nga ne agressé na ma duma na ma loolu dana wut si Doudou amu ko Doudou lu mu na cherché si Doudou amu ko Sonko benn adversaire la am si kaso mi Doudou Ka te incha allah rabi bu ñu demee élection de rek a gagné Ziguinchor loolu amul sama. mais la moo Sonko amul droit amul Sonko Ziguinchor la nekk defe ah, am na droit dem fi ko ne ci Ziguinchor am na fa am ay ndaje. Ousmane Sonko xamul dara Ziguinchor. ah déet. xamu fa dara jola bi Ousmane Sonko déggul jola déggul soose. Eh, dégg na joolaa de benn langue boo xam ne mi ngi nekk biir Ziguinchor. dégg na joolaa de. déggul benn langue bu nekk biir Ziguinchor. mais dégg na joolaa mais na lakk dégg na joolaa. na lakk na lakkal amul ko moom Ousmane Sonko. waaw ah, loolu amul solo dégg na wolof dégg na français dégg na joolaa. moom moom Ousmane Sonko. waaw Ousmane Sonko gëmu sa waa Ziguinchor. Ousmane Sonko na joolaa de. amul baat bu dëggal mais du loolu xam nga affaire langue yi amul solo l'essentiel mooy vision ambition waaw mais léegi ah. yéen lan moo tax bi ngeen xamee ne Ousmane Sonko da leen di provoquer ngeen wuyu si ko ci provocation boobu parce que boo leen ko wuyu si woon boo leen def loon benn réaction boo leen ko bàyyi mu amal ndajeem tranquillement mu ñibbi kon coow li yëpp du am xam nga euh, dama lay wax xam nga ginnaaw ginnaaw ginnaaw seeku hmm. ginnaaw seeku bu ko muus fekkoon si biir kaafam Hmm. sax mu jëngu xeexa moom waaw nit ki mënoo ñëw di muy politique de responsable si digg Ziguinchor waa Ziguinchor ñëpp naw ko ñëpp naw ko yow ni lay gën viol ni lay gën yàgg ne ay doomu jàmm fii si digg Ndakaaw ba ay dee am ci te dossier mi ngi mi ngi si justice loolu yëpp doy la ngay xool nga bëgg nga gis nit ku sell ku yiw li muy liggéey Ziguinchor ak li muy def Ziguinchor Sonko su bëggoon Ziguinchor day taxaw jaajëfal Doudou Doudou li muy liggéey Ziguinchor mais xool ñaan bon yées nga ñëw ba en face que jàmbur en face que jàmbur provoqué doomu jàmbur andi mais provocation mooy maanaam wolof nee na bu la mbaam bu la mbaam nga feyoo yow moom yéen a ah. nga toog am fit sañ-sañ toog naan da ngay def ay conférence de presse naan ngay xasat nit encore. yow bay xas nit ki nit kooku am ay ndaw yu mag ndaw yu mel ni si dama saa donc su bàyyi xasee Ousmane Sonko benn man dinaa daal si kawam ak juróom. xasee Doudou bu xasee Doudou Ka benn. Hmm. naa ak juróom <laughs> moom Ousmane Sonko xam nga am fit weesu dafa scandale bu toj bu toj noonu nga xam ne point de presse. <laughs> jéem xool ñu lay def ku jéem salte waa ji. Ziguinchor kenn moomu ko ñëpp a ko moom kenn ku nekk am nga droit ci biir Ziguinchor ak ci la ne nga amoon façon yi nga ñëpp la ñëpp la Ziguinchor moom ñëpp si bokk yam ñëpp si bokk yam. Ah. mais soxlawuñu ay leader yoo xam ne leen di jiñ viol si ay auverges. Ah. soxlawuñu ay leader yoo xam ne dañuy jàpp ay doomu jàmm leen sacrifier da dem leen saaga ay paay bijaaw. soxlawu na ay leader yoo xam ne dañ naan doomu dem leen ngeen xeex gauche droite si digg mbedd Dakar yi soxlawu na ay leader yooyu xam nga lu soxla ki développé seen dëkk mel ni Doudou Ka nga xam dafa am xam-xam ñëpp ràññale. Hmm. Ziguinchor ñoom lañu soxla tey jii parce que Ziguinchor dafa dellu ginnaaw. ah Doudou Ka bi nga mën a présenté nit ñi comme un ange. lu mu bàyyi FONGIP ba tey kenn fàttewu ko ah. ay arriéré la fa bàyyi. FONGIP ay ay dettes yu jeex la fa bàyyi. gis ay ah, ay ah, euh, milliards milliards yoo xam ne quand même ay écart la xam ne quand même ñoo ngi koy tuumal mais léegi na nekk ange boobu nga xam ne moom nga ñu bëgg a offrir FONSIP dañ koy jox duudu hmm. décret ak feuille le président benn waaw dañ koy jox duudu hmm. tey FONSIP bu demee ba egg fu mu egg hmm. ba ñëpp dudd FONSIP nañ ko gërëmee duudu ka waaw ok moo ko moo ko développé moo tax FONSIP egg fu mu egg FONSIP nekkul loo xam ne day kii pour am bénéfice non FONGIP dafay nekk pour dimbali askanu Sénégal. waaw pour peuple bi bu ñu soxla xaalis abale xaalis pour ñu dem liggéey pour de rembourser. waaw garantir ay financement ay prêt bancaire boo financé plus de vingt mille personnes. Hmm. exemple. mais location war na ko mën a fay. boo financé plus de vingt mille personnes. Hmm. nga woo fay location. waaw FONGIP am Sénégal. FONGIP dafay ay nit. Hmm. ay employés. FONGIP boo financé tamit plus de vingt mille personnes est-ce que da am ñu dee. et que am ñu tukki voyage dem génn dëkk bi waaw. Mm-hmm. kon kooku li muy wutee bénéfice. kooku kay perte la perte mais waxuñu bénéfice sax mais location yi quand même. Ah, location yi. ak euh, fonds yoo xam ne dafa am fu mu waroon ah. dugg dugg fa. wala bu mu fa duggee lu ñu doon xaar ci ay retour amul. amul kooku est-ce que ki ko géré woon. bopp ba ah. doy na. mat na ba. <laughs> xam nga euh, moom moom laa wax nii. <laughs> ba nga ko joxee ba léegi ba diw laa. Ah. ba nga ko joxee FONGIP. Ah, dañ koy yëpp mbirum FONGIP fooy la ak fooy ak déggee paysagers. Hmm. moo tax ak FONGIP ba tey naan FONGIP. nekku FONGIP nekku milieu commerce boo xamante day day wut bénéfice. au sax FONGIP li nga séntu si perte la nga koy séntu. Hmm. parce que bay jël xaalis di lebal askan bi. Hmm. pour nu liggéey mais ñii dinañ delloosi. ñii dinañ gën dëkk bi. waaw <laughs> mais waa mais mais après tout quand war na mën a toog ah, comme moom ah. la ñuy tuumal. Dabazy ah, xam nga tey xaalis moo war a def conférence de presse ne. man fii laa dugg lii ak lii lii lii ak lii fii la dugg. xam nga man voilà def ay rapport yoo xam ne dafay setal mm-hmm. derem. xam nga ban tey jii si de Makhtar mm. xam nga man genre Doudou Kay dama leen jaajëfal xam nga dama jaajëfal. parce que tey nit koo xamante ne dafa nekk ingénieur bu mag. nga jox ko benn affaire boo xam ne daa am fa. Hmm. ba mu taxaw ba ñëpp di ko coow. moom bu ñu koy jox nag budget kat dafay accompagner. kon kooku ku jaxa jaajëfal la. waaw duudu ba nga jox fonds bi duudu moo dem wuti ay partenaires am. d'accord kenn jox ko budget aéroport tamit ah yàggul bu mu ko duggee mais fu mu toll nii paraît-il que ça ne marche pas ça ne va pas. gis nga AIBD bi nga gis nii. waaw. ay AIBD Air Sénégal par exemple. chaque jour ay retard ay AIBD bi nga gis nii. waaw. tey jii kenn xalaatu woon Air Sénégal dina dem New York. waaw Sénégal kan nga xaatagoon. waaw. loolu dëgg la kenn xalaatu dëgg la tey du taxaw ko ay AIBD bii nga gis nii ñu bëri apañ yi xam noonu la may AIBD bu dud yooyu AIBD si la ñëpp xam la may ay bu daay hmm? léegi day nag AIBD bu dudd ka la ñuy wax kon kooku su lu nga ko dénk <laughs> lu nga ko jox mu développé ko yow daal am non parce que dafa am ñoo xamante ne <laughs> dafa am ñoo xamante ne seen xam-xam seen xaañte eh. seen xaañte léegi lu tax rek la woon problème mu retard yi. ay ay Sénégal nañu ko mais dafay tardé. ni mu nii def vol bi nga xam ne day dem New York di ñëw. boo balaa boo wàccee balaa ngaa jot say bagage eh, man Air eh, Sénégal dama si voyagé. waaw mais yow xam nga ko mais mais mais Air eh, Sénégal. yi quand même yaay am na retard Air man dama leen naw. Hmm. parce que ay baax na mais dama ne professionnels ñoo fa nekk. bu mu ñëwee fa la fekk retard yi. léegi comme yaa ngi wax ne ku xarañ la ci ay université yi gën a ngande France la doon jàngee pourquoi résoudre problème boobu ba léegi problème retard la aéroport Sénégal am arrivé comme départ. xam nga aéroport cadre yi fay liggéey si boppam. Hmm. ñoom ñoo gërëm duudu. ñoo gërëm duudu. ñoom ñoo gërëm duudu. waaw baax na. ba pare hmm. nangu ni la. waaw am na solo kon cadre yi seen bopp ñoo ko wax. Uh-huh. te kan sax lu leen leb. d' accord association euh, Sénégal Casamance ressortissant euh, Casacé dëkk nekk Thiès. naka la association bi di doxee. déjà lu waral association bu mel noonu. waaw xam nga ñun dañ nekk ay doomu Casamance. bëgg Casamance suñu biir xol. Hmm. man si de maxtaakol yi man dag ñun professeur Bari ñun professeur Sadio ne fépp fu doomu Casamance nekk ak ak kii mouvement yeeg leen di jëli. nu xool pour ñëpp nekk benn xool lan la ñuy liggéey ensemble. kon association du waa Ziguinchor ñoo si nekk am na waa Kolda ak waa Sédhiou waa Kolda waa Sédhiou ñëpp a si nekk. ok nu xool nan la ñuy liggéey ensemble. Mm-hmm. ñu su bëgg a nekk ñëw na fekk su ni ànd depuis boobu léegi ay at ñuy liggéey ensemble. ok am ngeen ñaata membre ñu si nekk sa membre dañoo bëri trop. mën na trois cent. quatre cent non ëpp na ko ëpp na ko te chaque jour day gën a yokk. ay mille personnes chaque jour chaque gën a yokk. chaque jour ñëw président Macky Sall bi passé euh, si élection présidentielle yi passé. gis nga dafa doon dafa doon plus de trois mille cinq cent t dafa dafa dafa dafa lépp a jeex. dafa <laughs> joxe ok <laughs> lépp lañ jox. d'accord da ngeen def ay initiative culturelle euh, ak yooyu noonu wala. waaw sant yàlla bañ cat topp nu. Hmm. bañ cat topp nu association bi màgg na màgg boo xamante ne ba tey étudiant ressources en Casamance yi tey nekk si université yi. Kousa Diakhoune ak Ngampal da ngeen ne xaar sama numéro ñëpp ko yor ah. kon dafa am association nationale. waaw am bu bu régional. waaw parce am naa problème nangam am naa problème lii nga seet la xool li ñu jàppale. ok xam nga ba ba te yàlla mi ngi le fait nga nekk ci président association boobu ñàkkul ne am na ay nit yoo xam ne ci yeneen parti la ñuy milité wala yaa ngi mën a def différence entre association boobu ak sa parti man mhm. damay tout les dimanches dañuy def suñuy réunion ñu si nekk ñëpp intérêt Sénégal moo tax a jug. Hmm. laa bokk te ñi ñoom ñëpp ni ngi may accompagner dama jàppale si bu ma nekk te après ma bokk. ok d' accord lan ngay tijjee. sant leen gërëm leen. di wax euh, waa Ziguinchor. Hmm. Euh, directeur général de Zalipol on a def caravane caravane médicale. Mhm. boo da ngay jaar service commercial boo fi naree wax yi muy def ci intérêt mhm. ba le 31. ñu koy entre Ziguinchor ay Adiana te tey ku mel noonu def loolu te waa Ziguinchor ñëpp jaajëfal ko bu nangu benn saay-saay du ñëwti biir Ziguinchor du fa tuur ay deret waa jëm a gàggal dexew <coughs> d' accord am na solo leer na message bi merci na <coughs> merci Sidi Makhtar Koli uh-huh. euh, ñoo ngi lay jaajëfal di la gërëm di la dig daje uh-huh. euh, peut-être ci beneen entretien fii ci senego point uh-huh. ñuy jaajëfal mbokk internet yi di remercier technicien bi di Ablaye Seck di leen dig daje ba beneen yoon fii ci Senego le site numéro un de l' actualité divers euh,